nag di war ay naagam gay te du jabum sant leen ki doon yónneen si di barahama bu taxutoon ak jëmmi gay du jox si bu ñi na law yaa ñuy garde si di barahama wax mooy borom jamono Baay mooy borom jamono Baay Ñas baayu mooy borom jamono Baay Ñas baay barahama ilahu wahidun subhana rabbiyal a'la melo bi doy na kéemaan Sidi Barhama babul hadara bi kaabal majarama سيدي بحر ما لولا لا سيدي برهامة واخل سيدي برهامة موي برم جمنو أبو الأرواح باي موي برم جمنو باي نس باي برهامة